féex am mbégte Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo am yitte du fakk am nuyoo te deewul cof nit te mos la tas yaakaari gaa ya daa ñëwit يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الحكيم وليس معه في الدنيا من رسول مثل الموت الذكي ويعلم الكتاب ويكون سيطعن قبله طلائع asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu lay delloo ab nuyoo yow suñu baara di sama rakk di sama xarit di nuyu ñu nga àndal te jiital ci nuyoo bi kilifa yoon bi mu Seex Muhammadul Muntaxa te ñaan yàlla bàyyi ko fi yàggal ko fi ba mu àgg lépp liggéeyam ak koy jàppale ñëpp di nuyu seen Seex Mbàkke moom Seex Abdul Xaadir ak ñu mbokkal Cheikh Abdou Khadir ñëpp di mbokk jullit yëpp jërëjëf waaw Mbàkke loolu sawar naa ci lool len rek moo ciy taxataayal mooy danga laaj ko amul xam-xam fekkiwut lu bari waaye nag nopp léeg mën naa mag boroom lenn am na loo xam ne dund naa ko moom am na loo xam ne it dégg naa ko moom Cheikh Abdou Khadir mooy aw soxna Aminta Bousso mooy waajuram wu jigéen Seexul Xadim nag ku ñëpp xam la mu ngi feeñ ci diggante Mbàkke ak Mbusoobe di ñaari askan yu yàgg ci lislaam ak ngor ak diine <coughs> kooku mooy Cheikh Abdoul Khadir waaw bala ñu àgg ci njàng mi sax dañuy wax ak ganeem àddina mu ngi feeñe ci dëkk bu ñuy wax Daaru Alimul Xabir ñu gën koo xam ci ndaam ci kër sëñ Abdourahmane Lo ba yàlla dogalee ñu war ko jox aw tur boroom daaru Muxti la sëriñ bu mag bi yabal ne ko mu dem jox ko aw tur tey diggante bi muy dem ba bi muy delsi ku fi maam Thierno gis wala nga gis fi maam Thierno wala maam Thierno gis la te gisoo ko yàlla dana ko jégal kon moom njëgal la indaale ba yàlla dogalee loolu wax nañ ne borom daaru Muxti lam ci rendi ciy gàtt àgg na ci suñ daam ci boppam moo ne lii nag am na lu muy nuru ndax daal xer gëm ci xër ci ndigal loolu ko Serigne Touba jox ak ngëneelul Cheikh Abdoul Khadir mi nga xam ne moom moom la war a jox tur wi da ci maam Thierno daf ciy gàtt bari na lool ba jéggi dayoo kooku mooy Cheikh Abdoul Khadir ma yàlla dogalee mu mat a dal alxuraanit dañ ko suñ Moxtaar Sourang la ko sëriñ bi suñ ab suñ daama booleel mu yóbbu ko ci njaareem ci sëriñ bi. moom dalal ko ba noppi nag tegaat ko ci loxol suñu daam moom it mu nekk fa ab diir ba ji daal naa sori suñ mbàkki bu soo soog koo jël jox ko suñ Birahim Ndiaye suñ Birahim it mën naa wax ne ni jaayama ci wàll moom la ko jox mu mottali alxuraan ci lu gaaw ba bindu kaamil jóge fa nag dem si suñ mat dem mu njaareem moo itam jàng na fa dara. len li mottalee ko sëñ Assane Bousso wala njàngam bokk na ci li ci gën a siiw barab yooyu jaar na fa na nag ku bari xam te teel a fob jëfe lool def ko muy itteem daanaka meloon ko xamee woon ci boobee mu nekkee tut tànk ci saayir ba ni muy boroom amul la ci soppi kon njàng mooma noonu la ko wéyale ci jëfe ak sellal waaw jëkkër si Abdul Xaadir da boo ko doon tënk da ngay wax ne alxuraan juy dox ci kaw suuf la ndax mboole melo woo xam ne sunu borom tagg na ci ab jullit melowoo na melo woowu ni ki saxaabatu rasul nga xam ne bépp laay wuy dikk ngir tagg ci ku baax dañuy gaaw jikkoo la ba mu nekk ci ñoom moom nag boo ko doon tënk dangay wax ne euh, almoomin la aji gëm gëm nag balaa mat fokk mu tegu ci juróom-benn ponk yi al imaanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wal xadar muy juróom-benn yëf yoo xam ne gëm ko muntu ñàkk ci jullit moom melo yooyu yëpp nekkoon na ci moom moom mu nekkee aji gëm ba noppi nag nekk muslim mooy kuy jëfandikoo li nga xam ne moom la mooy mooy wéral gëm ga te doon jullit boobu mu doonub jullit rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax na ne al muslimu man salima al muslimuna min yadihi wa lisaanihi jullit mooy képp koo xam ne mboolem jullit ñi mucc nañ ci ayu loxo mbaa làmmiñam loolu mooy tax a doonub jullit si Abdul Xaadir nag moo ma defal moo gën a yomb moo ma def ndax diirub lim fi nekk lépp lu jariñ bindee fi ak lu leen di yërëm ak lu leen di xettali moo doon aw sasam ba ni muy jëbara moom kon ba mu doonee moomin doon na muslim ba mu doonee muhsin ba muslim ba noppi nag muhsin la woon mooy aji rafetal jëfam yépp te koo tënkoon ci li yàlla bëgg tayam ca kepp nag nga xam ne daal danga danga xam da xam ne kon am na iman am islaam am ihsaan te loolu buñ ko tënkee daanaka mooy mooy mool ba yàlla bëgg ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ko suñ borom moolee ba ni nii laa bëgg ku ne mel dañu ko royloo roy googee nag dafa mel ni moom da ko roy ba am ci moom cër boo xam ne sax day mel ni moo ko yar ndax mboolem jikko yëpp boo ko doon tënk daanaka jege na lu man ñaar fukki jikko yoo xam ne bu ci nekk boo ci duggoon rek dangay nga jàpp ne lii rek mooy mooy si Sëñ Abdou Khadr te di caa géeju ba bari la ci lool ndax euh, ngëm googu nga xam ne moom moom laa jiital ne moom la def hmm. nit ki ba ko yàlla wàccee ci kaw suuf la tax mu wàccee ko mooy jaamu ko te jaamu ko boo seede ne amul benn buur bu dul yàlla amul benn na Muhammad la yónni ci mboolem mindee fi sallallahu alayhi day laaj nga jëfe lim indi te mooy lislaam ba ci topp mooy julli juróom moo topp ci lay wéral ngëm googu julli juróom nag diggam ak sëñ Abdou Khadre day mel ne xaritoo nañ ba nga xam ne moom mënu koo bàyyi julli juróom mënu ko bàyyi ba ni mu fi jógee sax ci julli juróom ci la demee ñaar ñaareelu rakka ba ci julli waxtu tusbaar agut julli te julli juróom nag bu doon cere la dangay mel ni am na ñeex mu ko gunge muy rawaati bi nga xam ne bu dee fajar gi dana jiital ñaar rakka soog a julli suba hmm. yor yor bi moom xaw ma lum ci daan julli waaye saxaloon na ko hmm. bu dee tosbaar ji dana jiital ñeent rakka hmm. gannaaw tosbaar ñeent hmm. bu dee njëkk takkusaan ñeent hmm. gannaaw timis ñaar ci ci biir këram la koy jullee ndax yonent bi sallallahu alayhi daana def noonu gannaaw gee mu def fukki rakka ak ñett loolu mooy mooy mooy ñeexum julli juróom bu dee weeru koor am ñeexam weesuwut yooyu mu ko daan gunge muy juróom-ñaari fan yi ci at mi yow ci sëñ indi ci Masaalikul Jinaan ñu mm-hmm. mel ñaar fukki ñaar fukki fan ak juróom ci weeru dëgg mm-hmm. juróom-ñeenteelu tabaski ak juróom-ñetteel ba mm-hmm. ñetti fan yi muharam ak yow mahasura ak kazu rajab ak nisu saxbaan loolu mooy ñeexum koor bu dee asaka moom daana ko génne ndax sëñ Moodu Mbàkke ab taawam moom la tegoon ci tool yi moom itam bu liggéey bu tool yi war noppi bañ génn asaka ja hmm. la ci des ab moom la koy la koy jëbbal hmm. moom la nekkee woon ak moom hmm. kon asaka moom it daana liggéey di ko génne te uh, asaka it boo ko boo ko bëggoon wutal lu ko gunge moom it da nga wax infaq fi sabilillah te kenn ko ne xam na ne sarax moom daa bokkoon ci lim boole ci yu sasam nga xam ne moom da koo farataal bu dee aj makka itam lam ko gungee mooy omra maanaam kon day mel ne bu bi bi mu gëmee yàlla ba noppi hmm. mboolem gëm yàlla war a àndal tam koy tam koy dëgëral hmm. kooku moom bu ci nekk def na ko nam ko war a defee hmm. te def ko ci digg doomu nga xam ne na ko yàlla bëgg rek la ko defee ndax bu dee wàllu joxe sax alxuraan day wax ni wallazina isa anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kaana bayna zalika xawaman ndax kii joxe bu loxoom tàllee ñaret du am lum mos foofu yeddaa ngi mën na ko fa dikkal bu banko ba ngott ba nay ba nga xam ne di joxe dara itam dees koy sikk moo tax ni doo joxe ga ci gën mooy nii moom nag noonu la noonu la ab tabam la meloon da koy ci àndaari sérian ba noppi te di ko def ngir yàlla ñett naa ne bokk na ci li ma xam ci wàllu luy wéral nga moom jikkoom nag li ma la ne mooy alxuraan alxuraan mboolem nu mu bëgg jàmm mel ko indi na ko nu mu wattandiku jaam bi mel ko it indi na ko yonent bi sallallahu alayhi leeral lu bari ci sunnaam moom nag boo ko doon tënk da nga xam ne benn tànkam bi da koo teg ci alxuraan bi ci des mu teg ko ci sunna si yonent bi nga xam ne mooy leeral alxuraan noonu ca la daal ci diggam ak yàlla ba mu rafet ndox ci diggam ak rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci topp sunnaam ba mu rafet ndax sallallahu alayhi wa sallam daf ne daf ne daf ne sama sunna képp bëgg na topp sama sunna ku topp sama sunna rek bëgg na ma te ku ma bëgg maa moom ba àjjana kon day mel ne ñaari tànk yi tax a dëgër daal mooy teg benn bi ci alxuraan bi ci des ci sunna bokk na ci lim jikko woon tamit waa xam nga sunna moom boo ko doon tënk da ngay wax ne mooy lépp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mbaa mu jëfe ko mbaa mu saxal ko saxal gi nag mooy lu ñu def ci kanamam te waxu ci dara loolu mooy sunna sunna yooyu nag dafa bari ay ay xeet ak i ponk ak i pàcc waaye ba ci ëpp solo mooy mel ni yonent bi meloon sallallahu alayhi wa sallam ci jëf ak ci jikko te jikko woo sunna weesuwut nga doon jullit bu gëm yàlla di jàmm yàlla nam ware te di ko teg ci pasteef mooy looy def yàlla tax fonk say bokk mën a muñ tabe lewet waaye nag loolu lépp li muy am am nag dafa nasoon ak dundam muy li nga xam ne yàlla moo ko moom muy jaamu gi boolewu ci dara bañ na ko sax bu waxtu wu julli jotee loo bëgg loo bañ loo bëgg mu dékku daal bàyyil bañ julli ba noppi waaye buñ xasee nodd moom amatul sago ci dékku dara lu may julli ji rek kon loolu la yàlla moom boolewu ci kenn li yonent bi sallallahu alayhi moom ci moom hmm. bañ na ko bu yor-yor jotee hmm. ñu dem ci liggéey bi lay wax hmm. nekk ci ab diir boo xam ne moom it sunna la ko jagleel muy julli yor-yor ak yam yam yam baaxoo def ak loo xam ne yaramu boppam la ko jagleel muy digg bëccëg bi moom nekkutoon koo xam ne digg bëccëg day dem ci armeel yi comme ni ni muy def bu buñ xasee julli tisbaar daal gannaaw taksaan lay mën a doon wala ci yor-yor waaye loolu mooy li yaramu boppam moom mhm. njaboot gi seddoon na leen ci boppam ma mhm. nga xam ne diggante timis ak gee mhm. moom gone yi kër geeg seeni i aajo waa kër gi loolu moom ñoom la ko jagleeloon li ci des mu bàyyee ko nit ñi te loolu boo demee ci siira danga gis ne mag ñu baax ñëpp xaajoon ñu seen dund ci ci mbir moomu bu dee wàllu jëfandiku yit ni mu ci royee sunna doy na doy na ndax boo demee ci xadis yonent bi salaam salaam xam la ne doomu aadama ni mu war a jëfandikoo mooy biir bi da koy xaaj ñetti xaaj benn bi lekk benn bi naan bi ci noyyi waaye suñ suñ suñ mbokki ndaw ko nday ñoom dañuy jël ñaari dugal ko ci ñam wi buñ naanee duñ mën a noyyi boo defee boobu bërëng rek liñ leen di mën a def ndax ñu mën am jàmm waaye waaye moom doxiwutoon noonu am na ko baax ku xam ne ñoo bokk ñoo daan bokk di jëfandikoo. Mm. nee na ma de sàllaaw fi muy fi muy jëfandikoo yow doo ko mën a xàmmee. ngir néewug lekk. Mm. te it noonu mu néewug lekk mm. yàlla may na ko kàttanu doole ndax day def ruu bu màndee ci yàlla. yaram bi dootu bëgg lekk. moom nag ndaa bokk ci gaañu baax ñooñu nga xam ne seen ruu dafa màndee ci sunu borom. ba daanaka du ajo aajowal ñam wa. bu dee wàllu nelaw. kooku it néewle na ko ba nga xam ne daanaka bu tàggoog nit ñi lu jege min wi ñaari waxtu wala ñetti waxtu dana fekk mu jóg te guddi gi gépp da koy dundal ci euh, jaamu yàlla julli wérd ñaan yàlla bu njëlee mu mu yor korusam di def salaatu ala bi ak istixfar loolu moom loolu moom lu mu lu mu fonkoon la bu dee wàllug jaxasoo moom mos sa jaxasoo jaxasoo bu amul njëriñ ku muy seeti ku ne la muy la muy xool ci yow mooy kóllëre ak bokk te loolu boo ko tënkee da ngay xam ne bu dee bu dee wàlluk noppi it wax ju amul njëriñ si Abdou Khadre du ko def même bu dee kaf it la muy kaf dëgg lay doon nga ne kon nga sunni yu la boo xam ne daal dafa mu tasawuf la boo ne da ko nëbbe sunni yu gi ndax ndax eh, sunna sunna da ngay dégg gars yi naan sunna sunna sunna nag tekkiwul sikkim bu gudd ak mbubb mu gàtt loolu ñëpp ko mën waaye sunna dëgg dëgg da ngay jëfe la yonent bi daan jëfe ba noppi jikko woonam jikko woo woon moom nag boo ko xoolee day mel ni yonent bi da ko yar ci xeeti jikko yu baax yëpp bu ci nekk rek amu ci amu ci kum ci dendal ci ci wàllu boobu ndax boo demee ci wàllu ak sunnaam bokk na ci li yonent bi wax ne wakkilu ci yàlla mooy ni ma yàlla binde ma moom laa mel koo xam ne nag meloo nii mënoo mel nii ma yàlla bindee kon nag bul doy di ci topp sama sunna moom nag wakkilu googu da ko defoon ba ab téere sax daw ko takk du saraxe ngir yilla du ñaan lu ngir wér moom daal lépp lu muy def daal jëm yàlla képp képp mooy tax moo waral ba daanaka bu fekkoon sunna doon na ku ñuy tàgge daal keroog bañ ko tàggee moom sunna sunna wàcc na bu liggéey waaw ci ko yàlla bindee day xiif di sonn di taayal léeg mu jàdd waaye ca kooku mooy si xama moom moom yàlla da koo mooñe woon loolu moom xam ndax sëñ Tuubaa dafa dafa wax ne bul ëppal bul yeesal na sax rekk ci sunna ndax euh, ëppal nit dana ko def waaye waaye du ci amee tuyaaba ndax ëppal sax amoon na ci jamono yonente bi sallallahu alayhi ñett ñooñee nga xam ne dañoo kenn ki dane man dey bu ma wooree duma ma dog kenn ki ni man duma denc soxna ki jëles na day fanaanee julli bañ ko ko waxee dafa mer ba mu feeñ ci kanam gi mu woo leen bañ dikk mënu leen yéen wax nangam ñu ne waaw mënu leen maa leen gën a ragal yàlla fuuf gën leen koo xam waaye damay woor di dog di denc soxna di julli du noppalu te julli googu di noppalu it ba tey moom mi daana ko def bu la ba mu yàgg day toog ab diir soog a jóg àggale te it njël njëlbéenu guddi gi la ci ëpp moom la leen naafila nga xam ne kon istixaama bi bi muy digle moom dana ci cocc nga xam ne lu toll ne tarfatal xëy ni musu ko caa musu moo tax bu ko waxee rek da cay yomba roy tayit Euh, roy boroom xam-xam mm. buy jëfe xam-xamam mm. ki amul di roy borom xam buy jëfe xam-xamam daf day mel ne mm. nit ki am fetalam ak i balam mën a rëbb mën a jam kooku mooy ki am xam-xam bu fekkee dem na ba tiire ba jam kooku jëfe na ki xam ne nag amul xam-xam waaye daa nekk ak borom xam-xam bu jëfe xam-xamam day mel ne ki am barkeb saa bu xëyee ci bu xëyee rek yónnee ci gàtt ga euh, ci euh, daral ga ab gàtt bu koy xoolee gis waaye mooy bu làmbi daj hmm. loolu mooy roy boroom xam-xam noonu loolu lay jëriñ hmm. moom nag jub gi jub hmm. ku nekk moom te jàngut sax bu yàgg day day doonub sunni te du ko yëg ndax lu muy def bisimillahi lay ci jiital sëñ Abdou Khadir ab jaaroom da ko daan wëlbati njong li féete ci biir te loolu boo jàngee siira da ko ci gis sëñ Moussa ko sax firi na ko daf ne soppoon na ay jaaro yuñ def njong te daana ko sol tey làq njong la ci biir te xam la yàllaaw ku ma sa gis photo si Abdou Khadre da nga gis jaaro bi da koy féetale ci biir ba ci kaalaam gi noonu moo koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la doon kaala woo sax da koy tegg yi teg def bopp neen Isaa mu kaal mu def bopp neen Isaa mu kaalawu bis Isaa Isaa mu sol mbaxanaam kon yooyu yëpp yonent bi da ko daan def Sëñ Abdou Khadre daanu kaalawu daanu sol mbaxan daan def bopp neen fonkoon na it jartu lim gën a bëgg it laaj ko lañ bokk na ci ak julli te loolu boo demee ci sunna hmm. da nga gis ne yonent bi salaam salaam bokk na ci li li mu wax ne yàlla bëggaloo na ko ci àdduna hmm. yooyu ci la bokk ba ci sol mbub mu weex te kenn ko xam na ne hmm. mbubb yi ba ca gën mooy mbub mu weex mu sa toog it te juwlu penku li li ci ëpp ay toogaayam néew ma néew ma bis set lay doon de waaye li ci ëpp boo ko gisee penku lay jublu te itam lépp lu mu la wax dana ko def li ëpp solo ngoog nit ku fonk rendez-vous la koo xam ne bu la dix heures boo ñëwee onze daanaka xaw naa génn ci yow moom noonu la fonke baatam lépp lu mu la wax nar na ko noonu la ko yàlla bindee te it euh, noonu mu fonke baatam it noonu la bëgg ko fonk baatam moo tax lu mu lay defloo li feeg yaa ngi koy man rek du ko santaat keneen moom li li lépp ci way la ko def nga xam ni mu nosoo daal noonu la waye hmm. te it waxtu mi mi mu baaxoo jàng alxuraan kenn nu ko koo tee def waxtu mi baaxoo dem armale it kenn mënu ko koo tee def waxtu mi baaxoo jokk bokkit noonu moo ba tax na daal dundam gépp daal boo ko doon boo ko doon xëy na waxtu wee xat waaye buñ ko doon kii xajul ci émission ndax jikko joo indi ak melowoo indi rek nam cay géejoo danga xam ne lii jagleeg suñu borom la ak ak nangoo roy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci ci ay jikkoom ak melow te loolu ab jullit loolu lañ ko sant ndax laxad kaana lakum fi rasulillahi iswatun xasana yonente bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom daf ko mool ba ne nii laa bëgg ko ne mel moom nag ba mu dikkee léppam da koo teg ci sunnaam moo tax ma daan wax ne yonente bi laay roy ci wax ci lekk ci naan ba ci lépp te loolu koo ko xam-xam ko du jullee fu dul jàkkaam itam lu mbir mi xat-xat bu dee taw bu dee naaj bu dee liw moo jiite ci jàkka ja te yonent bi nee na képp ku ngeen gis ba mu baaxoo dem jàkk rek neen ko séeral ngëm noonu la fonke woon sunna ba nga xam ne képp ku mu gis nga baaxoo dem jàkk hmm. mënatuñ ko wax sikki ci yow moom xam na ne jullit nga rek hmm. loolu doy na sëkk loolu moo moo doonoon ay mbiram waaw ay ay ay li ma ci labiré te di ko tàmbalee sama bopp de mooy jéem ko roy hmm. ndax mboolem lu ko mas a naqari kenn mënu koo xam lu ko masa a kenn mënu koo xam lu dul nit ku mel na yàlla bëgg daal loolu moom bokk na ci li ko li nga xam ne warees na ko roy ci moom liñ mën a roy ci moom ci jamono itam mooy fexe ba jokk bokk te it jikko munta mat te takkaayowoo ñetti mbir ku la tooñ danga koy baal mm. ku toog ñëwut nga dem mm. ku lay xañ nga di ko jox te loolu moom jikkoo ma moom. Hmm. moom bari na ñoo xam ne. Hmm. daanañ daana dem seeni kër te mën nañoo bay ñëw këram. Hmm. waaye loolu lépp moom xoolu ko. ndax moom daan wax ne da ngay def lala la war te bàyyeek la ko war. ba tax na fi ne loolu yóbbu na ko. mboolem kum seqal rek. danga dem ci kër waaye ay jiili jiili nga fa fekk. loolu jikko ju rafet moo ko man te jikko ju rafet mënut mat ñett yi matut. kon loolu mooy ñaareel bi mooy fexe bay jokk ak bokk. fexe ba dëggu itam maa ngi koy dénk sama bopp di ku dénk ñëpp ci li ñu war a roy ci Sëñ Abdou Khadre la bokk ndax lu mu la wax rek moo nekk ci moom moom amul tirise moom lépp lu mu la wax mooy dëgg ci moom dëggal itam bokk na ci ay jikkoom yi ñu war ci moom ndax dafa daan wax ne dégg naa am ku wax am am ku wax ne mas na ñett ngi di wut waaye kenn ko ci am ne ko dof nit nit du am Sëñ Tuubaa ndax loo wax rek ma ne loolu nit war ko def dof doom du am sëñ tubaa ndax day def ba def lu lu ëpp def nit ku nite mooy am sëñ tubaa lu mat a def nga def lu mat a def mu bàyyi daana wax ne itam hmm. penc ma ku fa indi sariixa kese hmm. des lay dimbale hmm. ku fi indi xaqiiqa kese mën nañ mënees na laa bañ a dimbale waaye ku leen boole koo bëgg dimbale dimbale ko sariixa ak xaqiiqa nag sariixa moom day mel ne ki dikk di laajte aw yoon waaye ne la yoon wi de mi ngi nii hmm. waaye fii laa mën a yem xaqiiqa nag mooy jub jàpp sa loxo mën la dëkk baa ngi nii hmm. daana wax ne hmm. képp koo xam ne yaakaarul ku dul yow te bu tàmbalee tàbbi ci kàmb tàllal la loxo da fas yéene bala caa tàbbi nga ne ko lii dee kàmb la mu mën koo moytu <laughs> daana wax ne man du ma ñam ñabal dëgg waaw wallaahu laa yastaxi min alxaq moo tax moom amutoon kersi ci dëgg ku mën a àndalit fi mu toll boo defee loo wër defit dal la ko wax fi saasi ndax dafa am ci du jar tudd tur waaye dafa am ci kilifa gu mag gum jébbalu woon ba fa kooku bàyyi koo nag mu jébbalu ca taaw ba dox tuuti am lu dox seen diggante mu bëgg fa xàccee nag ñëw waaye daf ko ne booy boo nga déem dem te maslaak moom ndax la la fa naqari ba tax nga bëgg faa jóge boo fa dikkee boo ko defee dinaa la ko wax <laughs> loolu moo moo doon moo doon mbiram moom daal moom daal modèle la boo xam ne képp ko ko roy hmm. noo mën def yàlla dana la gërëm te it doo doo doon nitu neen moom hmm. ndax ndax lépp euh, da koo jeexal ci suñu borom moo tax mos def lu yàlla taxut loolee nag euh, daa doon loo xam ne waruñoo bàyyi mu duñu rëcc hmm. ndax moom liggéey bi ñoom ñoom ñaña ko jottali bi ñu koy jottali dug man mm-hmm. waaye ngëm ak way ak jom mm-hmm. moom lañ takkaayoo ba liggéey bi agsi fii mm-hmm. kon nag maa ngi dénk sama bopp di dénk mboolem koo xam ne ñu ngi lay tudd di ko tudd nga fexe ba liggéey bi wéyee ci yow loolu moom mooy mooy sedd xolam mooy mooy tax ñëpp euh, siggi te euh, la sëñ Tuubaa bëgg ci noonu yàlla dana na ko may daal moom dangaa laaj koo xam daal bëriwul xam-xam xamul dara te it amut fasaaxa <laughs> maa ngi doog ngànt nag di jégalu ñépp <laughs> waaw soxna soxna sëñ nga waxit ak ñu koy ñaanal bu baax moom itam suñ borom dëgëral ko te xam ne lii ci wéyal liggéey bi la bokk ndax lépp luy tasaare liggéeyub sëriñ Touba su ñun la war kon nag ko loolu képp ku jóg jëm ci rek yàlla na la yàlla dëgëral te dëgëral say jéego yow mi it ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm te di la ñaanal ndax xam nañ sa bëgg lu baax saa su ne yaa ngi ci yëngu di ci dox ci bokk gi ci wax ak ci jëf loole nag say maam nga ko mm, roye ñu ngi la ci ñaanal yàlla dëgëral la ci demal le ci ngërëm te defal la fan bu gudd ànd ak wér ñu ngi sant suñu asan mi tam di ko gërëm bu baax ci liggéey bi yàlla na yàlla daal defar mbir yëpp te may nu ak jub saxal na ci lu Sëriñ Tuubaa bëgg teñ bañ caa jóg mukk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu feex am mbégte Cheikh Abdou Khadir Mbacke moo am yitte du fakk am nuyoo te deewul cof nit te mës la tas yaakaari gaaya daa ñëwit